dara samay mbokk. Ah. parce que man dama tamit comme taaw laa sànq maa ngay wax ci première émission bi. Mhm. yaa ngi dégg war naa mun a xam nga teral samay waajur tukki di am. dimbali samay mbokk. kon daal États-Unis mooy pays bi la gën a neex ci àdduna bi. mooy pays ma gën a neex ci àdduna bi te bëgg naa fa dem comme gars yi nañu fay demee. te incha allah tamit dama fay dem rek. gëm-gëm boobu laa am. tout à fait di fa teg sa tànk. tout à fait dinaa fa teg sama tànk di entraîné ci combat di. Mhm. ba léegi euh, euh, ñu continuer ñëw ci tey boo xëyoon rek tekki dal ci mm-hmm. liggéey am alal ju bari lan nga ciy de tey jii de su ma xëyoon rek tekki. Ah. Ah, sama kër bu baax laay wut defar ko bu macha allah comme mbëri nañ koy defee. Mm-hmm. ak comme nit ñi nañ koy defee. Mm-hmm. yaa ngi dégg ñëw jël caabi jox ko samay ñaari waajur. parce que man tax ma gën a sonn ci làmb sëy naa ma damaa sonn ci làmb la. moo tax damaa gëm ni dama cee war a lekk. Ah. yaa ngi dégg man su ma découragé woon. ndax kon instant yi duñ ko waxati. mais damaa sonn ci lamb ba pare ñu encouragé ma tamit ma nekk ànd ak samay mbokk. ñuy daw di daanoo kon man damaa war a lekk ci lamb. kon daal boo tekki woon am dara li ngay njëkk a def mooy. kër lijjanti gàlle bu baax. gàlle bu baax dugal ci say wëju. billaahi nii nii ku ma ko mayoon sax damay wàññil yoon bi lu bari. ñu avancé tuuti. waaw euh, nga xëy un ñu ne la am nga benn am benn baat ci réew loo teree ñu jëlee ko fi lan nga fiy jëlee. benn baat kon ñu jële ko fi yow yow nga xëy ñu ne la am nga benn baat ci réew mi hmm. loo lii jële leen ko fi ñu jële ko fi lan nga fiy jële hmm. waaw dina bari moom benn benn nga am benn baat waxuma la ñaaroo la benn baat lu loo rek lii jële leen ko fi rek ñu faxas ko jële ko fi lan nga fiy jële non ba man benn benn baat boobu noonu waaw maanaam loo xam ne da nga koy métti loo xam xam ne soo ko mënoon jële da ko fiy jële waaw waaw si léegi jox ma benn rek maa maa ngi lay doog a dégg nag parce que yow say question tamit da nga may bett quoi say question da nga may bett macha allah ah, mais da nga ma dul suivre mais gars yi des fois dañ may suivre dañuy xam après su ma ñëwee nu muy demee noonu la demee nag man non maa ngi lay suivre yow sama doom day sa liggéey rafet na jaajëf yaa ma njëkk a photo instant dëggantaan di photo instant bi kon yow xam nga yàgg nañ maa ngi yàgg na yàgg na loolu waaw noonu la demee moo waral lii sax mais am na loo xam ne tey jii su su ma doon président sax laay wax mbala ma tekki woon ah. am yenn alal yi ma gaañ bi chômage bi jeunes yi ah. chômage bi ci réew mi ok bàyyi ma dellu bàyyi ma dellu ci question bi maanaam soo xëyoon am benn parti réew mi loolu na jëlee leen ko fi ñu jëlee ko fi semence bi nga fiy jëlee semence bi laa fiy jël ndaw ndaw ñiy xëy bëgg a bëgg a liggéey duñ ko am duñ am fuñu liggéey am nañuy liggéey sax nekk ci entreprise comme sama classe yi nekkoon ci entreprise mais doo fa am dara da ngay liggéey daw dañoo rek gaa yi jàpp ne yaa ngi ci entreprise yu baax yaa ngi am xaalis fekk amoo fa dara loolu dafa mer ci réew mi. yaa bi de buñ ko wàññi woon. buñ ko wàññi woon ubbi fii ay entreprise jeunes di liggéey. di liggéey waaye mais yi agression yi yëpp dootul amati. yàlla xam na loolu. yaa ngi dégg un passage ñu nekk ci kaso yi tamit yàlla nañ fa yàlla génnee si jàmm ba ñu delluwaat seen njaboot. ba xam nga yàlla bañ leen ko dugalaat. waaw waaw di seen waa leen ñaanal bu baax. naa la bu baax mais benn instant dama naan rek euh, bu ñu ñëwee ba ci dernière partie bi dama naan rek euh, canal ténor yi mbër yu mag yi mbër yu nekk ci kaw kan nga ciy xool rek ngay génère un jour arbitre sifflé génn seen diggante kan ngay gën a rêvé bëreeg Modou Lo da ngay rêvé bëreeg Modou Lo ma la rêvé naa pour bëreeg Modou Lo parce que xam nga lan ñaanal sax Ama Baldé yàlla may ko ndam ak lu mu def Pikine dafa yomb quoi fa yomb dugub Pikine fobeere suñu tonoor ñaari ñaari yoon. aller aller retour dafa yomb quoi. mais da ngay da ngay rêvé bëri moom. pour bëri lu tax ngay rêvé bëri moom lu tax ngay rêvé bëri ak moom. loo gis ci moom pour defar ko bagage rek. loo gis ci moom loolu ba tax ngay rêvé bëri moom. ak waaw lu ma gis ci moom bëri na champion la mbër la champion la mbër la. mais ban bëgg naa bëri moom. kon daal da ngay rêver un jour daal reporter bi ne attention attention canal mi ngi taxaw à gauche. Modou Lo mi ngi taxaw à droite arbitre bi sifflé na génn seen diggante roofoo nañu diggante canal ay fois ak Modou loo day am léegi léegi te mbër bu nekk da ngay ñaan yàlla yegg ci kaw loolu ngay ñaan yàlla ñaanoo yàlla ba rek wàcc suuf bi ba rek ay. non ça c'est clair ça dangay ngay ñaan yàlla di yéeg. Mhm. man dama ñaan yàlla comme Modou Lo mooy roi des arènes nii. nga dem ba nekk. yaa ngi dégg ma dem ba nekk roi des arènes bi lu gaaw sax. kon yow sa mbébét nekk roi des arènes. non si mbër bu nekk loolu ngay ñaan yàlla. non man wax na ak mbër yow laay wax. man loolu laay ñaan yàlla boo déggee man yow non non bi day leer yow da ngay mbébét nekk numéro un dans bëgg a nekk roi des arènes. non roi ku nekk da nga fiy jaar jàll mos li ngay mos yaa ngi dégg mais man ñaan naa yàlla tamit merci bëri ak moom loolu laay rêvé nii. da ngay rêvé dem un jour ba nekk numéro un dans l'arène. si waaw. ok. waaw de zéro parce que mooy titre lamb ji. est ce que yaa ngi koy liggéey est ce que li la koy may yaa ngi koy liggéey. non maa ngi koy liggéey kay bu baax maa ngi koy liggéey maa ngi ciy def ay démarches. kon benn instant dama naan rek sama gars yi sama émission ak yow hmm. tey. fii lañ koy iya, yemale lan ngay tàggatoo. waaw lu may tàggatoo moom lu dul di di nuyuwaat ñi may jàppale ñëpp yaa ngi di nuyu yaa di fan si club canal bi maa di bëggee ñoom ñëpp ku lim juum yaa ngi dégg 100 pour cent ñëga bi groupe Fallou Ndiaye bi ah kéewul làmb bi. Hmm. sama waa kon ci de caare kaw fii. ñu may jàppale ñoo bari fii man dama amoon lu ma manqué. Hmm. instant bi maa ngi sant yàlla yaa ngi dégg hmm. mu quoi bi ñu may bari na directeur Fodé Sané ñu may jàppale bu baax ak Abdou Salam président guy yaa ngi dégg. ñoom mm-hmm. may jàppale. di sant waa Jifir ñëpp yaa ngi dégg waa Ndeyaan waa Zoa. ah waa Dionewar. Mm-hmm. waa Niodior waa Fimela. ah Missirah Toubacouta. Mm-hmm. ah. ci ki ñangal ah yéen tubaab jalaaw ñëpp may jàppale waa asalem asalem fa laax mm-hmm. damay jàppale moom it sama rakk la mu topp si man mais jigéen bu mun bu la damay jàppale di ma jox xaalis yaa ngi dégg di ma jàppale sa combat da siy jàpp regroupement yi lépp moom moo koy def waaw ah, di sant en passage sama xam nga ñëpp ñëpp waaw jidda caare grand koñ yi mm-hmm. grand koñ bi sant ñëpp jidda caare kaw yi fi nekk ñepp ma ngi leen di sant leen gërëm nee 66 quartier la dina caare kaw ma ngi sant wa waa wañ wa fi mbi fep daaw fep fan ci club canal nek ak ñuy bëggé canal ñepp ma ngi leen di sant sama ben gars Ibrahim Samson ma ngi koy béggee bu passage bu nuyu wa ko bëggé waaw wa Yara Caaroy ñepp ma ngi leen di béggee ku lim juum bala do matal mhm. ma ngi siyaar ñepp di bëggé ñepp rafet kon dal jappal ni sama émission ak yow ak yow tay tay tay bu tay bi fi lañ koy yamalé di wax gars yi gis que ne c'était avec euh, Canal Info bu écurie xéewal gi bu Pikine moom lañu jàkkaarloo woon tey li taxoon ma ñëw seet si ko nag mooy comme j'ai l'habitude de le dire ah, bëggatuma mu sumee ko taxaw ci géew ñu ne kii kan la mais bu taxawtee ci géew sumee ko nañ ne ah Canal Info ngi nii mais lan la fi indi tey tey lan lay defaat waaw di waajal rek affaire leen wax gis ziar ziarat euh, ba beneen yoon incha allah ñu ngi leen di jox dig dañ jaa ngeen jëf sama